daal nañ koy eh, teg loxo rek Bamba gis nañ ni situation yi nga xamante ni tegee nañ ko loxo image yaa ngi nii <coughs> mu nekk loo xamante ni eh, doy na waar loolu nag eh, avec saa ñu daal di koy yóbbu kaso nekk na lu doy waar loolu ban jàngat ngeen am ci lii lii lii le temps ñu woo ki nga xamante ni mooy Yolande Camara mu daal ci indi ay leeral waaw je pense que jàngat bi ci def rek mooy lu ñaaw la lu ñaaw la ci gisin euh, ci koo xam ne peut-être il a pris l'option d'être li nga xam ne moo di un activiste défendre li nga xam ne aussi moo di ay euh, préoccupation défendre également li nga xam ne moo di àq ak yelleefu euh, ñenn ci askan wi pour man en aucun cas gisuma woon que ne liñ ko teg nii war nañ ko mën a teg doomu aadama ak ces conditions aussi bu fekkee ne yóbbu nañ ko kaso parce que mu ngi woon pavillon li nga xam ne moo di spécial et ce qu'on a comme information démb jot nañu génn li nga xam ne moo di plateau précipitation pourquoi ñu génne ko est-ce que dafa wér wala est-ce que je pense qu'il y plusieurs d'interrogations yoo xam ne dañu woy di ko daal di samp di laaj mm-hmm. et démb j'ai écouté le ministre de la jeunesse di Malick Ndour euh, faisant que ne moom euh, ñooñu nga xam ne ñoo def li ni mel yabalu leen xamul leen dem bay waat ci alxuraan mais je pense qu'il faudra une enquête ñu diligente ko même bu fekkee que ne Pape Abdoulaye Touré ñu ngi koy toppee par rapport ay chef d'inculpation mbir bi xaw na jaxasoo et tout je pense qu'il faudrait nee na bi ko ñaar ñooñu nekkoon ci scooter doon teg loxo Pape Abdoulaye Touré dafa seen ñaari gendarme di woote secours mais ginnaaw bi ñoo ñu ñëwee euh, ñi nga xamante ne ñooy nervi dañoo présenté wu comme des recrues de Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse loolu lañ présenté ci loolu lañ jël la ko gendarme yi daal jàppee yóbbu ci benn ruq boo xamante ne tamit fekk nañ fa ay takk der di ay kàddu yoo xamante ne nag euh, tukkee na ci ki nga xamante ne mooy euh, Pape Abdoulaye nee na bu ñuy demee ci ruq boobu bañ demee Euh, ñi nga xamante ne moo ñoo nekkoon ci euh, ci scooter bi di représenté comme de recrues de euh, Pape Malick Ndour xamle nañu ni xàmmee woo leen kii ba mu ñëwee loolu la njëkk a wax policier est-ce que xàmmee ngeen kii kii mooy ki nga xamante ne mooy taal moo taal kër ministre bi kër kii mu sax kër Matar Ba moo nekkoon ki ko doon taal. nee nañ ci lañ ko ne euh, yéen yéen la ñan ñu ne ko ñun ñooy recruter nervi yi nga xamante ne ñoom la Pape Malick Ndour daal recruter ci loolu lañ ko ne yóbbu leen ko fële ngeen commencé daal koy dóor loolu la moom loolu la kii wax Pape Abdoulaye Touré. te loolu bu nekk loo xamante ne injustice la euh, même bu fekkee tamit dañu fa nekk en état d'arrestation euh, ay dóor ak ay damm waru woon a nekk waru woon nekk loo xamante war nañ ko ko mën a def. waaw lépp ci mën a am rek man mhm. je je réclame que la justice euh, faire li nga xam ne moo di son travail euh, faire son travail nag mooy mu élucider les Sénégalais ci mbir mi naka la mën a amee mhm. euh, ci koo xam ne ñoom nous nous supposons que ñoom ñoo ñu war euh, suñu kaaraange ñooñu nag bu fekkee tey ñoom ñooy jalgati suñu kaaraange pour man mhm. jàpp na ne ça devient de plus en plus grave et je pense qu'il faudra ñu diligenter une enquête équitable et que tey place u Pape métti na mm-hmm. trop mm-hmm. et les cas euh, moo euh, sàkku li ni mel nga xam ne moo di euh, yoo moom c'est indéniable dans les commissariats mm-hmm. et prison et donc jàpp naa ne nag Sénégal lu fekkee dafa signé benn convention ratifié li nga xam ne moo di ay convention lu jëm ci wàllum xeex lu jëm ci wàllum torture et cetera donc ñu koy gis ci prison yi jàpp naa ne aussi loolu lu ñu war a mën a saytuwaat la lu ñu war a a diligenter une enquête la et que cette affaire également war nañ ko leeral parce que que lii am du gulet parce que rappelez-vous le cas ki nga xam ne moo di Boubacar Kambel bi ñu ko jàppe woon ci benn match Sénégal c'était le même cas dañu ko mënate woon di ko traité di ko dóor ba finalement gis nga li ci xew et donc ñooñu nga xam ne ñoo defoon li ni mel kenn traqué wu leen kenn topp leen loxo mu mel daal euh, mbir mi ngi di jéggi dayo il faudra peut-être ñu stopper un peu cette situation autre solution ci ñu mu gën gaawee

di ko di ko ñaanal aussi moom tamit mu euh, delluwaat ci jàmm ak salaam. Mm. ba regañe waat li nga xam te ni moom mooy santeem ndax tey boo xoolee lépp rek dafay dikkaat ci tolluwaayu dëkk parce que dëkk jàpp naa ne bu ñu demee ba toll ci euh, di kar nit euh, di ko def jenn jëf ji. Mm. sous le contrôle d'une personne dama jàpp ne war na mën a jot ñu mën a identifier ñi ñi non seulement ñi def jëf jooju waaye aussi tamit ki nga xam te ni moom moo leen yebal. sinon rek dafay nekk ab loo xamante ni moom mooy torture dafay daal di gën a te su boobaa kenn si ñun du ci épargne wu kenn ku nekk yàlla tere lu ne mën na la dal à tout moment te tey fi ñu toll nii moom mooy wax fa dëgg yàlla dañoo nekk si guddi goo xamante ni kenn si ñun rek nekkul koo xamante ni mën nga waat ne mbir mi dul la ndax boo xoolee Pape Abdoulaye Touré euh, xañ na peut-être lim doon xeex ñoom ñu jàpp ne dafa nekkoon koo xamante ni dafa doon déranger. Mm-hmm. moom si terrain bi à chaque fois. di gis aussi li nga xam ni mu ngi koy mëne mhm. aussi bu mu nekkee université tamit suñu ay frère la fa nekkaloon xam mhm. nañ wala ba wax nañu taxawaay ba nga xam ni amoon na ko fa ak la ko fa jëlee moom aussi des fois day dikk si kàddu day dikk si ci fee yu mel noonu kon fu ñu demee tey ba yii nii mën ko arriver te ba léegi ñu gis ak tekkaaral goo xamante ni ba tey mënaguñ wax ne ñi doon def ab Pape Touré jëf jooju noonu am na ñu ci teg loxo wala am na ñoo xamante ni euh, Euh, xam nañ ci ñoom lu leer leer ak ki nekk si ginnaaw aussi tamit ba moom mooy mujjee jóg bi mu commencé tane di def ay révélation di wax li nga xamante ni moom la mujjee ko ci mbir mi parce que tey mën naa jàpp ne wax dëgg yàlla gaañ nañ ko dóor nañ ko aussi dóor yu metti ci loo xamante ni kenn xamul lan la nduru mën naa jàpp ne seen yéene bu matoon moom mooy ba tey jii nii waxatuñ ko ndax am na loo xam te bu la ko nit defee rek war nga sax sant yàlla xam ne da nga rëcc mais tey waroo woon toog fii di ko nettali mu mm-hmm. nekk ab tentative d'assassinat boo xamante ni wax dëgg yàlla war nañ mën a jëlaat ay matukaay bu baax a baax si mhm. sinon nag lan lay mujjee jur mooy kenn ku nekk si ñun da ngay mujjee nekk sa propre sécurité bopp mooy lan même bu fekkente ni sax danga am ngànnaay doo dem di déclarer pour di wut ay ay ay ay ay certificat de port d'arme ak yu mel noonu. parce que mm. lan da ngay rek bëgg xam ne à tout lu ne mën na la arrivé te su boobaa li nga mën a jëfandikoo rek moom mooy moom mooy euh, say say say self défense. Mm-hmm. te dama jàpp ne dëkk bu demee baaga foofu noonu ñëpp dañuy bëgg a nekk à la fois agresseur ndax lan doo dem di agressé mais nag di nga jël sa matukaay pour ci bu la nar a agressé. Mm-hmm. te tey yàlla traité traité boo dajee woon ak benn. benn force de défense et de sécurité muy muy muy muy vérifier wala boog muy ramassaate am na ngànnaay yoo xam ne bu fekkee yow mën nga am problème mais li ñu ci jublu yow nekkul agressé mais tolluwaayu dëkk bi moom moo tax ngay jima wut yooyu ngànnaay pour juste rek ba nit engagé nga mën nga mën koo résister te dama jàpp nag ne wax dëgg yàlla dëkk bi bu nee ma toll foofu gouvernement bi aussi war na mën a reculer ndax reculer deltu gannaaw xool bu baax a baax lan moo mën a jur jàmm ëllëg ci dëkk bi mm-hmm. du ragal wala du du du du ñàkk a mais nag mm-hmm. loolu grandeur la loolu aussi tamit fiyata lay war doon tax ci ñun ñi nga xamante ni ñun la ñuy def kon daal lu ma mën a wax moom mooy wax dëgg yàlla ñu ngi koy mettitlu di xam ne yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ni yu ñu war a régler une bonne fois la di ko di di wax ne Pape Laye Touré même gëm naa ne bu fekkente ne bàyyi nañ ko ci moment yi tamit wala dem na ba wér ba lépp nekkaat euh, impact gëm naa ne dina continuer di xeexaat li nga xamante ni moom mooy combat parce que dafa am ñoo xamante ni noonu lañ mel dañoo juddu ci adversité ala kul merci na ñoo xamante ni noonu lañ mel dañoo juddu ci adversité ala kuli ali du nungu ñu leen di noot du nungu ñuy noot seen askan mhm. luñ ci mën di nag dinañ dinañ lu leen ci man di fekk dinañ ko dékku jàpp naa ne moom seen ñooñ la bokk comme ni nga xamante ni noon la ay nit yàgg doon xeexee pour seen réew parce que boo xoolee dama koy wax à chaque fois rek ñi mës a nekk ay révolutionnaire ba léegi tey jii nii am na ah, ay révolutionnaire yoo xamante ni ñoo ngi fi xañ na peut-être dimension yi ñoo bokkul te combat bi nga ni moom la ñooñ doon xeex moom aussi ci boobu la nekk mm-hmm. ñeneen ñi aussi tamit woote wu ay politiciens lañ te nekk ñoo xamante ni xañ na peut-être gis nañ ñoom benn révolte bi mën nañ leen a jàppe aussi que ni ñoom si lancé boobu noonu leen nekk daal lu ñu moom mooy dañ koy masaw waaye aussi tamit di ko mm-hmm. encouragé xam ne àdduna lu am solo rek moom mooy tolluwaay bi nga toll sa dëkk ak mm-hmm. Euh, dimension bi nga xam te ni ci wàllum bëgg am nga ko sa dëkk loolu moom moo am solo bëgg gi bëgg dëkkam ba loolu fekk ko ci est-ce que tey ñu ñu jiite bu ñu amoon bëgg boobu noonu ci réew mi dinañ toll fi ñu toll nii est-ce su boobaa du ñu permettre à ce que ñu mën a dépasser fii bu yàgg euh, moom nag dañ koy ñaanal rek yàlla daal koy jëlee foofu il est quelqu'un de très courageux wax na ko ci benn plateau xam na ni Euh, boobu moom bi muy wax loolu sax mi ngi nekkoon ci cinquième arrestation je pense loolu la wax euh, nee na euh, trois mandats de dépôt waaye tamit du tere à chaque fois su génnaatee tamit day continuer di résister résistance boobu nag moom da ci dafa nekk ci ci ci alenam donc dañ hmm. koy ñaanal rek dañ ko ñaanal yàlla jëlee ko fa mu nekk tey tamit yàlla daal di koy wéral ndax moom xarit la lool si ñun xarit la ci képp koo xamante ne ci presse bi nga nekk rek Pape Abdoulaye ak yow loo xamante ni Euh, frère am ndax nit ku baax la vraiment euh, mérité wul nag vraiment li nga xamante ni moo ko dal dañ koy rek ñaanal mu daal di fay jógee euh, également ki nga xamante ni mooy Ousmane Sarr moom tamit ab saareen la sax malgré loolu mais dama koy ñaanal moom tam mu jóge fa seen ami koo xamante ni sama xarit loolu la dama koy ñaanal moom tam mu daal di jógee fa nga xamante ni daal nañ ko fay teg prison yi métti na xat na tàng na te itamit ñi nga xamante def